àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha leen teewalaat si biir kër gi du nuyu kilifa diine kilifa aaday di ñaanal ñu tëdd si lali hôpital yi kër yi yàlla yëkkati leen fa ñu dox doxi seen soxla ñu nekk si tolof tolof tamit yàlla na leen yàlla fajal seen i soxla tey nag ma am gan bu tedd boo xamante ne moom si yu saf yi rek lay yëngu nag léegi dama koy bàyyi rek moom mu nuyoo wax leen moom mooy kan. su boba mu gëna neex assalamu alaykum Adam sunina ala wa alaykum salaam aisha naka nga def. ma ngi okay thank you alaykum ñu ñoy seetaan nuyu na leen Adam Dramela, borom Adam's pepper sauce. Oh, and Adam's chicken seasoning. lolu <laughs> ni kan lu am solo wa Adam eh, léegi nañu xool waxtaan bi parce que gis na ne table bi yanj na yu nice yi rek nga fi andi li nga wax ñuy seetaan kan moy Adam um, assalamu alaykum asalaamaaleykum um Adam Dramé. laa da. may defar yu safi coming over here. Adam's pepper sauce and Adam's chicken seasoning mm-hmm. so um, business B, Dinawara MC, one year in August this mm-hmm. year Inshallah. allah. kon ñoo juddoon lool a birthday. <laughs> Wow. <laughs> so it's a Gambian owned mm-hmm. man. maa ko defar fii laa locally produced. Um, everything apart from the bottles it's locally made in the Gambia so it's us ñoo ko moom. waaw waaw <laughs> kon nag bi moom neex na trop macha allah waaw lan moo tax nga ne pepper sauce. okay good question. pepper sauce waaw. Um, growing up. bi uh-huh. ma mag um, suma yaay daf always defar pepper sauce def ko si jars. Mm-hmm. def ko si poti weer yi ñu ko def si fridge bi su ñoo añ rek ñoo yaakamte génnee pepper sauce bi mm-hmm. yokka su safutee nga yokka because lim ñu jàngal mooy lim ñu wax mooy lekka mun naa neex mun naa saf mhm. te du ëpp kaani du ëpp xorom lu ëpp baaxut dafa joxe appétit so it was like an mhm. appetizer bi ñu daan am si pot teg ko fa kuy mhm. lekk rek nga jël nga def léegi su ma amaan xarit yu ñëw pour añ si ñu génne obis génne suñ poti kaani bi rek def génne na nga lekka xam <laughs> nga jànqale na dañ bëgg yu saf waa gis nga kaani bi nii <laughs> <laughs> maa ñu may seetaan maa ngi am mag bu jigéen ku yaa gaa. déedéet rek lay bëggee. ah kay ñu wax na dégg kon na ñëw ut si si kafa soos kon nag amu amu benn problème waaye ñu seet na tamit euh, staff yi MRC nga naka nga nekk di dundee liggéey MRC ak nekk di liggéey. lii di pepe sauce yi. waaw yombut nag moom. wax dëgg waaye àddina moom nañoo ne dara yombut. waaw lu nekk moom foog nga def si jom fula ak fayda. Mm-hmm. mu mun a dem. Mm-hmm. liggéeyu MRC mooy sama full time job. moom mm-hmm. <laughs> maa fay xaalis. <laughs> <laughs> business bi is my business. it's mine on the side. so yëpp yëpp deserve na its own time. but MRC I work from eight. to 415 mm -hmm. sometimes it goes beyond depending on the busy the busy woman mm -hmm. so i try to manage this business and the, my full-time job by um small watch eh, my mm-hmm. jail time small watch eh, product mm-hmm. the first my product see or my bible weekend so i spent my weekends on doing this yes, so small weekend see yep mm-hmm. danaka adam's pepper so small ko jail my the first my bagasi package wow well liggéeyal sa bopp tam dafa neex de soo ko seetee waaw Because you know. ne am so support faj ko. jaamaa liggéey ba dee jaamaa liggéey ba dee waaye am Adam's pepper sauce tamit mi laa fay. neex na waaw neex na naka nga di. Eh, fan nga dee jëlee comme ça kaani yi nga xamante ne moom nga nekk di defar be pare maa fi gis ñaari façon yi kaani mhm. maa ngi gis bu bu bu bi maa ngi gis bu xonq bi lu tax différence yi mu am si lan nga koy defee ok kaani bi fii lañ ko dee jëndee fii laay jëndee yëpp like nu ma la ko waxee woon si uh-huh. njëlbeen bi I source everything here. Mm -hmm. Feel like in this makani mm -hmm. and everything that goes into this jar Li reg la fi du jënd mooy bottle si. thank <laughs> you waaw I wish nag ñu ko fi doon defaree but nekkuñ di ko fi producer. Eh, waaw su duma ko fi dee jëndee. Eh. Mm-hmm. but kaani bi dama ko dee jëndee fii in wholesale si um, women gardeners si. laa ko dee jëndee. nga dimbale sa mbokki jigéen sa mbokki jigéen so kaani bi I have two I have three different flavors actually but mm-hmm. benn bi dafa jeex so I have am mm-hmm. na bu tudda saf extra saf ak ah. sa paral ah. lolu <laughs> neex saf extra saf ak paral kon jeexna wa waaw saf flavor bi. mooy mhm. just bi nga xam ne ku nekk mun nga koo lekka. Mhm. Um, extra saf bi mooy 100% guana bi. ñi nga xam ne dañ bugg a mu tànga. paral mhm. bi mooy bi am um, guana bi am you know other spices si biir mu gën a tànga bu mu am ay jinjara yooyu ah. mooy paral <laughs> <laughs> man dafa jongo ma gisuloo nu mu ko waxee saafaaral kon nekk na loo xam ne dafa am solo ba what are your challenges so far depuis nga xamante ne yaa ngi commencé euh, lii di Adams pepper sauce. oh waaw challenges moom sant yàlla macha allah mm-hmm. um, am na. but then like man dama dee jël challenge bu nekk ah, ma transform ko def ko opportunity uh-huh. because addina moom ak challenges ñoo ànd ah. so like li ma la ko waxee di liggéey full time di jox sa uh-huh. liggéey aaxaam oh, di jox sa business bi aaxaam parce que ku uh-huh. gis products yi nga xam ne du products yi tafa tafa da ngaa jël sa time defar ko so it's very time consuming and then liggéey bi tamit foog nga jox ko aaxaam parce que moo tax ñu teg la fa young, but si boppam teg chi the other challenge mooy uh, right now Covid is suma challenge la. COVID This is ma challenge because small bottles see, like I said nekkuma coffee ko source I source it all the way China lack of their source eh? mm-hmm. so China is on lockdown the world is on lockdown mm-hmm. I did yëpp a tëj because of coronavirus ñaan yàlla mu jëlal ni ñu ko fi ñu mun a delluwaat si suñ normal life so I cannot get my bottles right mm-hmm. now parce everything I source it um, the bottles I source it outside so and me, i am naa suma um, certificate food safety bi sell put it on the supermarket stalls ak si boutique yi ak marché pour ñu jaayal ma ko waaye dafa dem dafa suma certificat bi dafa pare mu tombeen teel ne China tëj na amatuma moo bottle so suma bottle si ma fi amee mhm. um, dinaa ko mun a nekkee di raamagu ba moom hopefully China su ubbee dan supermarket si marse ñi ma laaj kañ nañ ko am si supermarket mhm. si kañ nañ ko am si marse mini market si nañ ñaan yàlla corona jeex rek kon na yàlla na gaaw jeex su ko adam sauce mu gën a gaaw gën a gaaw <laughs> mun nga laaj la yow jabar jàmbur nga wala yaa ngi célibataire ba léegi. Ah, maa ngi célibataire ba léegi. waaw gis nga. Ah. waaw. waaye loolu leneen nañ koy waxata maa ma bàyyi ñooñu noonu di seetaan ñu mën a wax loolu noonu. parce que dama dama la bëggoon a laajte comme su fekkee yaa ngi sëy tamit naka nga ni koy di dundee ak njaboot ci yooyu noonu parce que xam nga jigéen moom moom mooy loolu duggaam génnam dafa bari. waaw gis nga gis nga loolu waaye ñu ñaan yàlla rek yàlla isulma. góor bi nga xam ne. bugga na Adams pepper sauce ni bosam. def ko bosam. dafa neex su <laughs> ma dafa neex su ma solee mu mu tëj butéel yi. waaw kay pompa ba mu baax. lay dimbale buy dem liggéeyi rek. mu yóbbaale nekk na lu am solo waaye tamit <laughs> soo ko seetee. Mhm. Euh, ma ma laaj la ndax am nga ay liggéeykat ñoo xamante ne yaa leen employé pour ñu lay liggéeyal si wàllum Adams sauce. Um, déedéet fu mu nekk mhm. amaguma kenn ku ma liggéeyal. maa mhm. de defaral yëpp suma boppa um, it's part of the plans. pour ma am jël ku nga xam ne dina ma jàppale oo ñi nga xam ne dinañ ma jàppale. Mm-hmm. du nekk ne damaa jaay di di di jaay rek di produce but then mm-hmm. dina tamit impact on people's life by mm-hmm. creating employment mm-hmm. so that is also in the pipeline but for the meantime because it just started like I said amagut sax one year mu ngee rambe tey doxagut so su demee ba dox macha allah ba gën a dox ñu mun a ut keneen fi ñëw liggéeyal ngam xam ne dina ko mun a boole ak man suma normal liggéey bi duma sonal and everything dina wàññi lu bari sax waaw so oh, inshallah loolu moom waaw young Gambian si waaw waaw ñu ngi gis tamit am na lu rax si kër gi. Mhm. muy chicken seasoning bii nii. Ah. waxal ci boobu tamit parce que man lu may gis nii ne yëpp jaar na si butéel bi. war nañ koy xam. waaw kañ um, Adam's chicken seasoning bi moom. Mhm. three weeks ago la laa ko introduce. so moom. mungkin dugum duga si makke bi mashallah it's mhm. doing really well and then mhm. feedback si ma nekk di am um, it's just amazing mhm. gaa ñu ne neex na saf na bugga nañ ko am naa benn client bi ma ne sax <laughs> moo tuddee ko chicken seasoning daf ko tuddee multi purpose seasoning because lu nekk la koo marinate te neex na yeah like I said um, brand lifin bi chicken seasoning bi just came in yaagut. Mhm. moom it is very nice. Adam's pepper sauce. lan ak lan ak moo nekk ci biir. la lu war a dem si chicken yëpp am na ca. la ah. la yow lii am na garlic. Adam's pepper sauce ang ci biir. bell pepper ginger salt vinegar lime thyme. léeg-léeg la kon nag suñ ko naree lim ut leen si xam na ne mu ngay ñëw te ñu bàyyi ba mu jaaxal saf la def macha allah. wala gis nañ biir ci biir lan lañ expecté ne Adams mu koy préparé pour andeel ñu ko ci biir kër gi. waaw yëpp ay surprise la doon nag. waaw Adam moom mbiram yëpp ay surprise la war gaaw. waaw incha allah fii ba at bi di jeex dig naa leen ko ne beneen product. o yeneen products incha allah rabbi. suñu yàlla bàyyee. Mm-hmm. Um, ak suñu sago. Mm-hmm. beneen products ak yeneen products dina ñëw. Mm-hmm. Um, bokk ci Adams Pepper Sauce and food processing. packaging bi so yeneen dina ñëw. please stay tuned for that. kon loolu moom na ñuy lu ñuy la. waaw parce que xam naa ne bu xasee accès si kër gi moom <laughs> dara du <laughs> mu nga ba léegi Adam lan nga foog comme nguur gi war nañ leen a jàppale comme yéen mi nga xamante ne yéen a nekk youth si ba pare yéen a nekk young entrepreneurs si yéen a ngay yëngu waat si biir réew mi so loolu yëpp e xam nga tamit foog ngeen soxla ndimbal so léegi yan support ngeen xamante ne loolu ngeen soxla pour mu ñu mën leen a dimbale si wàllum li ngeen xam loolu ngeen liggéey <gasps> waaw support bi starts from you me kuma seetaan ak ku nekk keneen ak keneen because lii ñoo ko moom mhm. Adam moomu Gambien baa ko moom Adam mhm. doomi Gambien bi la mhm. moo produce am production yi di ko jaay pour ni nga ko waxee economic growth bi mu am mm-hmm. fii because soo bàyyee xel ñun suñ dikka bi lu nekk nañ ko import mm-hmm. kaani sax yi ñëw yaay si boutique yi sax jógee wuñ fi dangaa jël jënda te safu dara mm-hmm. bii ñu ko fi defaree ñu ko ji fi nañ dikka ku ko defar fii la dikka set na seela na macha allah ku ko xool xam ko léegi nañ support luñ moom lii ñoo ko moom <laughs> nañ ko support moom sax de par gam bi dafa ñeme foreign products waaw moom soo waxee rek bi ne xaaral ma dem jëndi Kan, kan kan kan pacha non la ko gaade waxate te adam pepe sos nekk fi te daxa ko ba buga dee oh, <laughs> te boobu sax xam nga luy dem si biir waaye bi la tam yu si ëpp xamuloo luy dem si biir mu ngoog léegi lan ngay mun a xelal youth si nga xamante ñu ngi bugg start business wala nekk nañ sa business xamuñ comme xaale luñ leen yoon bi wala amuñ lu leer nga xamante ne lañ bugg def pour ñu yëngu si wàllum business dimbale seen boppa économie bi dellu si waat si biir réew mi Um, loolu lu am solo la. Mm-hmm. I see so many youths into business now am na ñi nga xam ne nañ la dee gis ñu ne la ne. I mm-hmm. want to do something like this I want to do something like that you know ku nekk man dama jàpp ne ku nekk. Mm-hmm. am na loo war a mun a def. mu des sa réew. mu nekk li nga xam ne yaa ko ndamoo. yaa ko moom réew baa ko moom. so li ma advice ku bëgg a def business bul toog. time bi mooy the right time there is no tomorrow. tomorrow guarantee when you de kenn exactly so if you have the idea if you want to do it do it now now is the right time tomorrow is not the right time exactly so um defal effort bi nga génna def li nga mun bul mhm. seet ne su ma ko defee lu ma ma sàmba di wax lu ma ma demba di wax bul xeeb dara mhm. dara jarut a xeeb mhm. lii raam nañoo ñaan yàlla muy dox so man daal li ma advice ñi si nekka ñi si nekkaagut ñi ci am éene nekka ci ñëw leen marché bi rëy na yaatu na dëkk bi ñoo ko moom ñoo ko développé suñ boppa ok te Gambien bi sax dafa yaatal ñëpp ba pare soo bëggee xalaat yow sa jël jël sa concept bi boppa ne man lii rek laa bëgg Euh, def da nga war a ut xalaat tamit si ñi nga xamante ne jiitu neen la si xam ne ne yow su ma la xelalee lii di nga si am jom nga xalaat ne loolu di nga si mën a njëriñ ëllëg yow ak sa njaboot soo suma mbokki ndaw yi tamit nañ si dara at least moo gën toog bi su man nag dama faral di teg lu ci taabal bi mhm. waaye tey ñett laa bëgg a teg ci taabal bi xam nga képp koo gis tamit am nga am nga la naxadi mhm. léegi may laaj Adam lan moo ko xamante ne daf soo su xalaatee rek xolam du neex Eh, Adam mi ngaa gis nii. dara naxariwu ko. zero stress. zero stress. Adam zero stress la moo dunda. Adam jaama la bëgg a. looloo ma neex man loolu ya. laa bëgg léegi nag ko ko gis ne eh, am na ñoo xamante am na eh, ko gis ne am na lu la naxari war nga am lu la neex waa léegi yow boo dundee zero stress lan la gën a neex. man jaama ma neex. oh jeex na waaye nak. nag lu ñuy Adam lan nga may tegal tey lu si mel ni lépp wala. Euh, liyal ma naka feccal nag moom mënuma ci benn. waa léegi joxeel cax. <laughs> suma yaay la. moom lay tooñ. <laughs> dafa génnoon. Uh-huh. ñeme dox rek waaye lii yàgg na rek. léegi mu ñëw. Uh-huh. ñëw ba si bunti aaj bi di dugg a moto. fi mu taxaw noonu dafa am ku amee woon CEO dege loolu tuuru fa oh. léegi mu dégaat loolu moom understandut affaire si di si bi mu dugal si moto bi tasee bokkaa benn suñ mbokki ak kuy moto ñoom ñaar a am ma déggaat mu ne ko no it's not ebe solo dege bi moom xam naa ne ak bi du ko mos fàtte Sebenarnya waktu besar dua, eh tadi kayak waktunya. Kalau mungkin mau coba pada aja dewe. Mungkin, lagi nak tahu ya, lah, baik ada mengerti kata orang. Pas kan nanti, sini ada tamu meri sini ada tani. Nui video, lagi tak kata orang ni. Bang, bang, tak kata orang nyep dalam wajah jenjep, sesetan bi, agdek lubi. Mhm. di expect nag nit ñi ñëw jënd si. loolu sax dañu war a wax. waaw ku bëgg a jot si lii nu muy def fan la lay lijjantee. 7010127 mooy number bi foo nekk ñu isil la ko. nga am sa bottle pepper sauce or sa chicken seasoning. neex na may xarit yi jeeg ñi. ak góor ñi sax nag. Ah. <laughs> kon nag léegi damay tàggatoo rek ma joxaat leen dig daje ba beneen édition after looy yëngu. man ne business profile la ñu wax Aïcha la ñuy faral di teewal si kër gi andi leen ñu gën a mën a reeloo nit gis nga tey adam bu mu ñu wax ndege bi la not ebe kon nag bye bye <laughs> ñu fanaan jàmm thank you so much for watching bye bye